delluwaat na kër yaayu Marème Faye am na lu xewoon démb tey dafa delluwaat waa tata Marème tata tata lan moo tax mu singili yaayu Marème Faye rek am na lu tax nañ ko seeti. jërëjëf jërëjëf Viviane te yaram bi daa tàng. bi mu tàngee du tey maa ngi leen di gërëm. dafa ñëw pour defante. dama bëgg nag ñu xam ne Demba dama fi ñëw bi ma fi ñëwee Demba di àkk si yaayu Marème Faye au lieu mu génn géwalem moo génn man du xuloo ak géwal du xeex ak géwal ndax man géwal yi dama leen xam dañu. bëgg ab Ablaye Wade rawatina Ali mi nga xam ne ndar la nekk moo tax ma rus géwél yi waaye ma xamal leen ñaar tey yaayu ma xem fay dina génn ma defante kook moom parce que man jéeg laa moom jéeg laa li tax mu bañ a génn moo ko xam dama ne ajaratu yaa ngi may dégg yow yaayu ma fay dama ni ku tëj sama doom sa loxo génnu ci maa ko wax démb da ngeen ma jéem a sot waaye bu génnee tey dina xam ne xawlu tubaab du jeex. du maag yow yaayu Marème Faye laa soxlo déggoo li ma la ma ne la yaayu Marème fay amul sa jot. amul sama jot dina am sama jot nag. dafay aji ji màkk. aji màkk ñëwagul fan lay jaar ba aji su ma ko jàppee dama koy séquestré dama koy teg ci kër gi ni mu tëjee sama doom moom la yaayu Marème Faye la. da fàtte démb. ku ñam. ku ñam ku ñam. da fàtte. yow boo moytuwul di nga ñam. ñi naan na kunu. buna yo temi iñañaña kono bi ni ñi gosi mbi la too de mani xanaa xamoon ne li ngay lakki bambara ñun am nañu lakki boo xam ne du foncé ci ci tubaab fi sa kase bi boo fa ci tubaab ci tupi mbi keelo too de pacci ki paccu to mbi key mugu mugu yo mugu lo paccu pi cambu paccu pin kasiyu ne masilan yee de mbi pi loolu la metti kenn tegu la ko mbi ni ngay waxee bambara ñun nañu amee ay làkk. da nga war a dem sa parti jëkkër nga toog jàppale ko. ah Iba Wade foo ni ñuy mina. ni ñuy mina. jumaat yow. jumaat yow. may ma jàmm ki la yónni laa soxla. yow géwél nga transhumant nga yow géwél nga dañ la yónni pour nga tagg ay maamam. dama ne kooku amul sa jot. ma ne jumaat yow. yaayu Marème Faye ki nga yebal jumaat moom. waxuma waxuma ak yow de waaw waxuma ak ko bàyyi yow parce que ah. des personnes transhumant nga mettee da ngay dem créer sa parti parti waaw sama parti jëkkër moo am buzz moo ma jéem ci ci sa làkk bi duma ak yow bàyyi ma tout tranquille jàppee tey jàpp nga may làkk-làkk boo xam ne xaw ma ko pisama kucu kucu ma paati bii cuusi ngayi pavisi ani ku siis taw taw Basi basi kan fɔ. n b'a bɛɛ ɲagami k'a kɛ i da. a bɛ fakala a bɛ fakala Ayima Ayima Ayima a bɛ fakala a bɛ fakala Ayima Ayima Ayima Ayima. yaayu Marème Faye yaayu Marème Faye yaayu Marème Faye anamu yaayu Marème Faye du ma sa mɔgɔ may leen na ma ñëw may leen na dégg may leen na dama ne du ma mɔgɔ man yaayu Marème Faye nga ni. ma ne yaayu Marème Faye sama wam la sama wam la sama wam la yaayu Marème Faye yaayu Marème Faye anel fakala yaayu Marème Faye di nga ma tooñ demal ne yaayu Marème Faye ni ma la def ñamal naa la yaayu Marème Faye nga doon jàng karaté démb yaayu Marème Faye yaayu Marème Faye boo dee ñëw ma defal di ko uhuh. jóge ayca jaaxal ni ilo ilo ilo dama ko lay